maanaam waxoon nañ ne fexlu su fekkee dafa nekk laazim mënul am mafoon bi boo dugalee hamza wala nga def ko mudaaf mudaaf mooy nga sadda ca nga sadda ca digg ba dafay mujj am mafoon bi su fekkee daraan nasab ñaari mafoon boo dugalee hamza wala nga def ko mudaaf dafay mujj di nasab ñett comme niñ ko jàngee woon foofu sax yi nasab ñett yëpp gis nga amoon na hamza wala mudaaf bu dee benn mafoon la doon nasab nag nga dugal ci hamza wala dégg nga nga def ko mudaaf mooy nga teg ko faala xam nga faala digg bi dañ ko def sadda dafay nasab ñaari mafoon loolu moom la ñuy jàng tey xaraja génn naa rajulu góor gi kooku laazim la mënul am mafoonam bi boo ko jéemee wuutal mafoon da ngay gis ne mënoo ko. waaye boo ko defee afala muy axraja génnee na day mën a am mafoon axrajtu génnee naa man rajula góor gi gis nga nasab na benn mafoon boo dindee am zëgi nag mu nekk laazim kon fi'lu laazim bu si am sa ñëwee nga teg ko afala day nekk mu li waaxidin bu mën a nasab benn mafoon jalasa toog na zaayiru aji ziyaare ji gis nga kooku la mënul am mafoonum bi waaye xoolal aj lastu toogloo naa parce que boo boo ko defee afaan la bi day changé aj lastu toogloo naa ak zaahira aji ziyaara ji na xam ne benn ma fom taa gi mooy faayidam daa sànku na alkitaabu téere bi mënul bi laazim la boo duggee afaan la dafay adaatu la woon nag waaye alif gi dañ koy dagg ndax ñaari sukkoon yu daje iza sukkina axirul ajwaf xusifa wasatuhu mu jëg aji woon bu sukkoone bu sukkoone da ngay asaf digg mm, ba moo tax nga ne adaatu sànq naa alkitaaba téere bi réeral naa téere bi adaa nga ko tëgg gis nga foofu am na ma foon bi fariha bég na alwaladu xale bi bil jaayisati ci neexal fariha laazim la pourtant maanaam jàggati na waaye ci xarfu jar fariha bég na alwaladu xale bi ci rum bég bil jaayisati ci neexal bi mun am mafoonum bi waaye boo ko jàggatee faala dang naan faraxtu bégloo naa al wala da xale bi bil jaayisati ci neexal gis nga am na mafoonum bi al wala da mafoonum bi la sahulat yomb na al masalatu masala mi wala laaj bi boo ko tëggee faala dafa nekk sahaltu yombal na al masalata laaj bi sama ba jafe na sayru dox fi tariqi ci yoon bi boo ko tegee faala lay nekk saaba jafeel na al mataru taw bi ak sayra dox bi loolu moo di misaalu lu munul am ma foonam bii boo ko tegee afaala comme axraja wala nga tegu faala faala comme faraha day mujj am ma foonam bii waaye benn rek lay nasab bu doon nasab benn ma foon nga teg ko afaala wala faala muy nasab ñaari ma foon xaraa jàng na aliyun aliyu alkitaaba téere bi gis nga aqaraatu jàngal jàngal naa aliyan aliyu alkitaaba téere bi aqaraatu jàngal naa aliyan ak alkitaaba yëpp ma foolam aqaraa la ñaari ma foon la am ba ci am zagi duggagul benn ma foon la waaye bu ci am zagi duggee ñaari ma foon la fahima dégg na sayidun sayid ad darsa darsu bi benn ma foon fahima sayidun ad darsa waaye boo ko tëggee afal na afhamtu déggloo naa saidan said ak darsa darsa bi gis nga dafay mujj am ñaari mafool darsa yëpp mafool la rakiba war na farid al farasa fas bi <clears throat> benn mafool la arkabtu warloo naa gis nga boo ko tëggee afal rek dafay firi def longo ko warloo naa faridan farid al farasa fas bi gis nga ñaari mafool la mujj am <clears throat> xaafa ragal naa rajulu góor nga teg ko faala muy xaw waftu xaw woftu parce que xaafa euh, boo xoolee masdar mi xawfu ngay wax kon alif gi cosaanam waaw la mais nag moom faayila la moo tax ngay wax yaxaafu fa yaxwafu waaw googu da nga koy change def ko mo mu nekk yaxaafu ndax atulul fata lim nekk faayila la moo tax mu daaroo mi gisoo ci waaw waaye masdar ma gis nga fa waaw xaafa taxaw na rajul góor ga ragal na rajul góor ga azul ma tooñ xawaftu ragal loo naa gis nga arrajul góor azul ma tooñ xafisa mokkal na alxulaamu xale bi alquran alquran xafastu xafastu mokkal loo naa xafazahu mooy mokkal loo na ko mokkal loo naa alxulaama ma foon ba nga ko tegee faala ñaari mafoon la am alxulaama ak alquran yëpp mafoonu xafaza la mokkaloo na xamala yenu na aljamalu gëlëm gi alxatoba matt mi xamaltu yen naa aljamala gëlëm gi alxataba matt mi bu neexoon sax nga bañ fee def taa ni ki xamala yen na arrajulu góor gi aljamala gëlëm gi alxataba matt mi kon li ngay gis fii daal mooy lañ jàngoon rek lañ ngi jóna jàng ci tasu bu weesu mooy faalu laazim boo ko tëggee afxaala wala faala day mujj di am benn mafoon faalu bu mën a nasab benn mafoon boo ko tëggee afxaala wala faala day mujj nasab ñaari mafoon dégg nga bu doon nasab ñaari mafoon nga tëgg ko loolu mu mujj nasab ñetti mafoon faalu nag ñetti mafoon la mën a am comme noonu ñu ko jàngee su ko defee lii eh, mottali dar su bëri gi déggee ci nag afala wala faala li muy firi mooy def loo na ko maanaam bi mooy changé moo tax muy mën a ma foofu albaaxsu bi mooy gëstu bi jëmel afaali mboolem faal yi fil qismi awali ci xaaj bu njëkk bi sulaasiya feenu sulaasiya waaye ñoom imma benn laazima mu nekk laazim kama fil amsilati sittatil ula comme juróom benn misaal yu njëkk yi la mooy xaraja ba samu mooy ma benn mu taadiya mu nekk lu jàggati li waahidin ñeel benn maanaam mu nasab benn waxoon kama fi am sel si tasi comme ci juróom benn misaal asaane yu ñaareel yi moom nga gis ci xara ba ba xamala wa iza tadabbarnaa buñ setantalee afaal al qismi saani fi'lu xaaj bu ñaareel bi fekk nañ ko taxtalifu muy wuuteeg afaal al qismi awwal ci fi'lu xaaj bu njëkk finaalu xaaju ñaareel bi ak finaalu xaaju bu njëkk bi am nañ différence tuuti maanaam imma benn bi ziyaadati hamza ñu yokk hamza fi awalil fi'li ci commencement fi'l bi teg ko af'ala xaaju njëkk yi fa'ala rek la xaaju ñaareel bi nag af'ala wa imma benn bi tali fi xarfi saani nga ful xarafu ñaareel bi minu ci moom daf ko daf ko sadda comme fariha ak faraha maanaam fi'lu bu nekk rek ba mu jàkkaarloo wuute na ak moom ba mu jàkkaarloog dañ ci yokk hamza wala ñu yokk ci sadda te moom yokkuñ ci hamza amul sadda faal asara ndax jeexin na zalika yokk googu fiyaa ci fexlu bi min haysu luzumi ci wàllu mm, taqoo taqoo maanaam mooy mooy ñàkk am mafon wa taaddi ak wàllu jàggati te mooy am mafon ndax am na ci wute ndax am waaw ba defee afaala ak faala gis nga ne am na changement ak wute ci wàllu نسب مفعول أن يك نسب مفعول فالأفعال فعل التي يحمل كان أنك في القسم الأول ليس قاجبا يكبي لازم تنوي فعل لازم لا فعل أنك في قاجبا يكبي لازم لا صار المجنة بزيادة الهمزة شوك همزة أو أو تنيف ولا فل لينغا saaran mujj na bi ziyaadatil hamza ci yokku giñ ci yokku hamza awi tanif wala ful guñ ko ful nekk mutaadiyatan di jàggati li waahidin ñel benn fi'il yu njëkk yi laazim lañ munuñ am xun bi laazim mooy boo xam ni maanaam dafa taq dafa dafa nekk ci biiram munul génn dafa taqoog moom maanaam dafa taqoog moom waaye ba nga ci yokkee hamza wala nga def ko mudaaf dana gis ne nasab na benn mafool kon fi'il laazim goo gis ñi tëgg afaala wala faala dafay mujj di am benn mafool والافعال التي فعلها قبل كان انك في القسم الاول في قلب جيكبي متعدية دفع جاكتي لواحد من البن شي كوتا نيار البا كم قرا فهم ركبا وخولي امنا برمي بارت دوزيم بارت خاج بنيك خاج بنيك قرا اقرا فهم افهم فهم بنيك ام بوم جاكالوك خاج بنيك هنا لاني جيت نعمل بن مخون بي متعدية دفع جاكتي لواحد من البن وهي صار مجنن بزيادة الحمزة ci yokk giñ ci yokk hamza aw tariin fa wala ful giñ ko ful mooy sadda gañ ci def mutaaddatan di jàggati li seen ñaar ñaar alqaayida li mooy tënk bi izaa ziida bu ñu yokkee fi awalil fi'li sulaasi si njëlbeenu fi'lu sulaasi hamza dan hamza aw du'ifa wala ñu def mudaaf saani bu ñaareel ba fi'lu sulaasi boo si yokkee hamza tëgg ko afala wala nga tëgg ko faala mooy ful xarafu ñaareel ba def ko sadda taaddaa dana jàggati li waaxid li ñeel benn in kaana nam nekkoon na laaziman di laazim bu dee mënu woon am mafoon bii day mujj am benn mafoon wa taaddaa dana jàggati li seen i ñeel ñaari mafoon in kaana nam nekk na asloo ci saan la mu taadiyan di jàggati li waaxid li ñeel benn bu dee benn mafoon rek la mënoon am boo ko tëggee afaala wala faala day mujj di am ñaari mafoon su ko defee loolu la bu doon am ñaari mafoon nga tëgg ko loolu muy am ñetti mafoon ده معنى به يسبق ميز راني لا الأفعال اللازمة فعل اللازم والمتعدية فعل متعدية فيما يأتي جديدك mu ne nga leeralal ko feerul laazim ak feerul mutaaddi lamma jaa bam dikkee al muizzu li diinillaahi moom loolu mooy turam tur yi neex lañ naan yore nag al muizzu aji teddal aji dëgëral li diinillaahi ñeel diine yàlla ci ba muizzu li diinillaahi ñëwee misra misra dëkk la mooy zul yi liñ laay tur la bam ñëwee misra na ku dikk al moysu fu mu dikk misra hmm, kon jaa ban fam la wa taxasa mu jàpp al qaahirata qaahira lum ko jàpp maqarran muy saxwaay gis nga it taxasa ngoog it taxasa jàngoon nañ maanaam maqarran muy saxwaayam li xilaafati ñeel xilaafaam nga qaahira fala fare nekkoon maanaam fara saxoon pour doxal xilaafaam dégg comme li nga xamee ne réew mu nekk capital ba fure président ba sax pour doxal nguuram habba buur na xam nga habba mooy fii upp na rek waaye liñ si ne mooy jug na ak doole yan shuru di wisaare al maarifa xam-xam ya fi bilaadi ci réew yi moom moo izzu wa yaxkumu muy atte bi adli ci mandu baynal ibaadi ci diggante jaam yi wa yasuusu muy jëflanteeg annaas yi xam nga siyaasa muy muamala rek jëflante siyaasa saasa naasa mooy jëflante nag ñoom naxanteeg ñoom waaye suusu muy jëflanteeg annaas nañ bi rifq ci jàppandal wala liine ak nooy maanaam ci yërmande ak ci nooy waaw nit nag mënu jiite ay nit te nooyo boo jiite ay nit te nooyo nguur ga daanu mbooloo ma tasaaro moom la yàlla waxoon yonent bi moom la bàyyi wax démb rek ñu ngi koy wax tafsir mu ne laaya jooju mooy tegtere nan lañ yoree nguur fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله موي لا جوجو موي جانغالي ناك لا نيت دي يوري نغور لي يوري نغور نك بوكو يوري كير مو دوخ بوكو يوري مبولا مو مانو دون مو دوخ مانام نوي جيتي ريك مون يالا نكو يرماندي غير يالا ديفال موتاخ نغا نوي سي صحابه li njëkk pour nga jiit ay nit mooy nga nooy seen kanam euh, mais boo dëgëree ba ëpp rek du baax kon li njëkk ci njiit mooy njiit dafa war a nooy dafa war a nekk ku ku yomb jikko ku rafet jikko ku nooy ku baax daal ñaareel ba mooy mu ne ko boo nekkee ku ñaaw jikko xiis xol mën a mer ba doo kenn lan faddu min xawlik ñoom ñëpp danañ tasaaroo moo tax njiit moo gis mu tab ci aw ci ñam jiite di leen fitna musiba jikkoom ja rafetul eh, mais nit koy wan gën a nguur gi day daan force kon eh, jikko gu njëkk pour nit jiite dara mooy dafay nooy ñaareel ba mooy mooy mooy mu bëri yërmande mu bañ a xiis maanaam mu bañ a nooy rek ñetteelu mooy fanfanum nga baal leen yàlla sax mu ñu jiite ñu nit ñi dañ koy tooñ koo tax ku jiite nit ñi ñu tooñ la mais jiit moo ne kenn du ko xosi eh, kooku du jiiti kenn parce que ku ko tooñ mu dàq la wala mu teg la musiba nga mujj nekk noonam bu yàggee mu néew doole ndax ñu ëpp ci nit ñi dañuy tooñ moo xam ñu xam ko wala ñu ñàkk ko xam ñu tey ko ak ñu tey moo ku dul baale mënoo jiite nit ñi nga baale nit nga pardon nit ñi nit ku mat amul borom xam-xam dina wax ne boo bëggee anandoor bu mat boo amut looy sikk ci moom demal ci doj yi nga làqatu foofu te boo demee ngelaw li ngay andi sax puuséeral la wala ñu pëndal la yàlla moom bañ na ne mat moom rek moo ko jegoo ndeysaan boo demoon ba ci àll ba nga da ngay da ngay beru nit ñi parce que nit ñi kenn matut soo demee nga eh, dëkk ak eh, ay ay pitax irrational lay ñëw xebina sa néeg ba wala bëy yoo xam ne boo bëggee nelaw ñuy sap wala ngelaw luy dugg sa bët ya wala boog néeg ba nga fanaan sax moom it yi di waat wadd di daanu sa kaw wala boog ñax ma di la kii bi puusar bi di am jàmm kon mindeef mënoo nekk ak moom te du la tooñ <laughs> te yonent daan na wax ne jullit buy jaxasoog nit di muñ seen lor moo gën jullit bu dul jaxasoog nit ñi muñ seen lor kon baale mooy ñetteelu jikko si baale ñeenteelu mooy wastaxfirloom dee leen jéggalul dee leen nag dafa laaj maanaam mooy bul nangu lu leen di gàkkal wala lu leen di delloo gannaaw di nekk ci ñoom njiit dafay fexe ñi mu jiite ñëpp ñu avancé ñu dëgër xam nga bàkkaar mooy liy delloo nit gannaaw rek kon lépp luy fexe ñi nga jiite bu mu nekk ci ñoom njiit moo xam ne fexe ne ba nitam xiifuñ maruñ raflewuñ ñàkkuñ xam-xam lottuñ seen lépp problème bu nekkee mu ngi koy régler loolu mooy wastaxfirloo bakkaar yépp problème yépp bakkaaru ko indi yàlla na yonent bi ñaanal yàlla mu baal sa gaay te yoowu la màtt sax sa bakkaar kon réglel problème yi waaye ku jiite nit ñi te régloo seen problème affaire bi yàqu wastaxfirloo mooy de régler problème xeet ñi nga jiite fexeel bu ñu am problème juróomee bi mooy wa shaawirum fil amri nga bokk ak ñoom xalaat ngay diisoog ñoom mais euh, jiit lu mu baax baax bu dee dafa jéego ay xalaatam amul kenn ku muy waxtaan ak dafay def erreur dafay def musiba euh, te bu defee musiba bu yàggee nguur ga daan kon wa shaawirum fil amri juróom benneel ba nag mooy parfois nga jël sa décision ferme boo xam ne yow xam nga ne lii nga war a def gannaaw boo diisoo ak lépp lii nga war a def boobaa moom yàlla na fay sa xasam tafa tawakkal ala boo ba dogg xam ne lii mooy yoon gars yi ànd wéyal rek te nga ci yàlla yàlla dana la dimbale su ko defee bàyyi na laay ji mooy yore mooy yore nguur waaye wax na dëgg dégg nga kon mu ngi jëflante ne ñi bi rifqi ci jàpp ndal wala lii ak nooy mais nekku ci force force yoru dara fa xaamat taxaw na ilmi marché xam-xam dafa bëgg wax ne jàngukaay bëri nañ waaw xam nga xam-xam amul marché bu ñu jaayee xam-xam waaye li bëgg wax mooy jàngukaay bëri nañ wa nafaqat jar na badaa'ul adab marsandisu xam-xam adab xam-xamu adab man nga ko firee xam-xam bu ànd ak yar man nga ko firee xam bo boo xam ni dafay neex nit ñi di ko déglu xam nga adab ci si cosaan ñoom mooy wax bu neex bu xoromu boo xam ni nit ki day sawar di ko déglu jël ci taam waaw mais loolu man nga ko firee xam-xam bu ànd ak yar parce que xam-xam bu ànd ak yar kenn du bëgg a kon badaa'ul adab mooy marsandiisu xam-xam bu ànd ak yar adab mënu nekk marchandise waaye dafa boo wax ne xam-xam jar na ci dëkk boobu maanaam tasaaroo na nit bëgg nañ ko jaral na leen dara loolu loolu loolu na mu mooy jar na ba daawu adab kon xam-xam la jël nirole koog marché na xam-xam bu doon marché ci dëkk boobu marchandise yi nekk ci biir marché boobu mooy adab jar na loolu nirole la Ah, yu mel noonu nirule rek foo fekk lu mel nii rek nuurul huda baytul mi kër gi la jël xam-xam la jël nirule ko kër fii xam-xam la jël ne mooy marché jëmmi xam-xam bi fii moo nekk marché jëmmi adab bi mooy marchandise exemple la ne xam-xam bu doon marché marchandise ba ci nekk mooy xam-xam bu ànd ak yar jaar na maanaam nit ñi bëgg nañ ko wa tawaafarat bëri na aram alal yi wa tëjaat jublu na ilay jëm si moom araañatu peuple bi ndax ku defal lii sa peuple dañ la jublu te doo ñu ngi ñaanal laa yàlla an yaxfasoo mu wëttu ko mu dëgëral ko peuple bi jublu ko di ñaan yàlla mu wëttu ko te dëgëral ko njiit dañ ko war di parce que njiit boo xam ne bu yàqulee ah nga am métit dëgg-dëgg li joo gaal gi moom na mucc rek am kàttan ànd ak xelam jub su ko defee gi mucc waaye moom boo ko ñaanalee mu am problème bu gaal gi suuxee yéen ñëpp ngeen suux su ko defee mu ne moo tax foobul baa ngi koy ñaanal yàlla yàlla wattu ko was daxamat boo xamte ne al wufuudu délégation yi jamo wafdun ala baabihi ci buntam bi woote fekk moom yastaqbiluhum mu ngi jàkkaarloo ñoom bi lëpp fii ci ñeewanteem wa bashaat shati ak mbégte kanamam mooy boo koy xool rek moom bëñ yi ngay njëkk a gis maanaam ubbi kanam gi ba nit ñi ñeme ko xam nga jiit rek garaat la jiite ay nit rek loolu garaat la boo ko boolee ñëkkal sa kanam na kenn du la ñeme rek ndax njiit njiit dina ubbi kanamam sax te du tee tax nit ñi ñeme ko ñeme boobu te pourtant moom amul benn problème ku ubbi kanamam la ku yaatu la mais am na xëy ba xam ne bu ko yàlla ci doomu adama jële moom dafa ubbeeku nit ñi duñ ko ñeme loo xam ci bu tëjoo nag hmm? xam bu tëjoo bu yàggee day mujj mel ne ab gayne gaynde moom nit ñi nañ ko waaye kenn du jëflante ak moom kon njiit bu tëju noonu lay mel day mujj nekk gaynde maanaam xëy bëgg day mujj ëpp su boobaa lay niroog moo tax mu ngi jàkkaarloo gaañ ñi bi lépp fii ci ñëwanteel ba caasati ak mbégte kanamam falam yaxul me meneen di jugee fi moom ahadun kenn ila shakiran lu mu aji sant ku jugee ci moom rek dana gërëm ak xanaa lay fekk ñu ci moom nekk ñu baax waaye ab saay saay nag bu jugee ci buur dañ ko war a tëj wala ñu yar ko loolu mooy yoon ndax nguur ga mën a dox waaye waaye xëy na ku jugee ci moom takku baax la bëgg a wax kooku dafay sant ak min mottali al jumal ate jumle yi dëkk bi wari mafoon nga teg bi wari mafoon nga teg benn mafoon aw mafoon lay ne wala ñaari mafoon fi la maakin xaale ci barab yu wéti yaay bu ci ñaar xajee nga def ci ñaar bu benn nga def ci benn ixtalaat buddeeku na ala ixtalaat waaw buddeeku na li moo doon cosaanu maanaam waaye fii buddi buddina lay ixtalaat buddina ala waasifu ngelaw yi mooy ngelaw yu ak doole jamu asifa nekk na ñëw na ci alquran ittaxastu jàpp na nangam samiran muy aji ngoom laan ak man ngoom laan baatu olof la mooy waxtaan kat guddi koo xam ne guddi yaag moom yéenay toog di waxtaan mooy sa samir huwa samir yi mooy moom laay waxtaan ak guddi iftara sa fàdd naa saxla bu kundi gi yete jënn bu dana teer an waqalaaw borom xel fekk naa nanga musmiran mu aji meññi saraqa sa na ali su bandi bi an daja ñorloona alxaru tàngoor bi sa yara mu jënn almaaw ndox mi nangam axdara mu aji vert zanna njort na sayidu sang bi jaxaltu def na ak daqiqa sunguf jaxaltu mujjal na mujjal naa ak daqiqa sunguf bi aw xada taal na alxaadimu mindaan bi xasal raxas na albintu xale bu jigéen bi jara góox na almarido aji feebar ji góox mooy mu dugal ko ci gémmiñam góox ko noonu addastu waxtaanal naa almuhmilu aji sàggan ji axlaqtu tej naa adat préparé na ak taahiyatu jigéen ji aji togg boo dagee taagi muy góor raada tàggat na alfaarisu aji war fas wi tàggat ko mooy mu fexe miin loo ko di ko war muy daw normal parce que fas ci njël benn war mu daane la asiba njort naa tabibu docteur bi yur yi dana woon allah yàlla ab zaalimina tooñkat yi ma zaqtu foñetina mm-hmm. dugalal foofu benn mafoon wala ñaari mafoon adxil dugalal fexlan fexlu min afaali rujhaani ci fexlu fexlu lëng yi fexlu lëng mooy fexlu nga xam ne njort lay firi gaa waaye li nga njort moo gën a ci yow nañ ko ci ganaaw ci mbokk yi zanna la bokk waaye ñoom rujhaan lañ yore wa maa an naag moom faayiloo faayilam ala kulli jumlatin ci bépp jumla mais jumla atis jumla dik wastaw fi matalal jamee afaali haasa ndaw yi mboole fexlu bi la xeet fexlu yi tekk yëpp te jàngoon ko nañ ko andi fi alwaraqu da nga indi fin bi ak fa'ilam après yi nekk ñaari mafoon kon kon yii ngay def ñaari mafoon parce que ñoom ci mubtada xabar la ñuy dugg kon da nga indi fin rujaar ak fa'ilam yi nekk ñaari mafoon alwaraqu fooy bi naayimun aji nooy la alxujratu saal bi waasi'atun aji yaatu la axuuka sa mbokk axuuka nag bu leen fàtte jàngoon nañ maanaam ci asmaaw xamsa la bokk bu nasabee li mi nasabee xamoon nañ ko zuumuru atin boromam mbañ ruus la mbañ ruus mooy koo xam ni am na lu muy jomm am na lu mu ruus daal yonent ne idaa lam tastaxi fas naa maa ciite boo demee ba amatoo benn kersa defal lu la neex yàlla yi def lu ko neex usnal xisaani ñaari noppi fas bi saxirataani ñaari ndaw lañ al ummaalu liggéeykat yi mujjiddoona way góorgóorlu lañ al muhandisuuna ingénieur yi xaadiroona way teew lañ al mujjiddaatu way góorgóorlu yi faayizaatun way way way gañe mooy danañ am lañu bëgg ñu jigéen ñi nag la asadiqaani ñaari xarit yi muqbilaani ñaari way jublu si lañ ñu ngi ñëw daal adxil dugalal fenlun fenlu min afaan yaqini ci fenlu yaqini fenlu yaqini zanak mbokk mi lañ bokk waaye ñoom li muy jëriñ mooy lu la wóor maanaa bu lu leer dugal leen fii wa maa waan naag moom fenlu boobu faay doo faay dama daa kuli jumlatin duur ko si bépp jumla mene jumla artiste jumla dikk wastaw fi nga matal jëmee afaan jëmee xaal yi afaan mboolem yi def fi'l kon yi mubtada xabar lañ dugal ci fi'lu yaqin asibaatu feey mu fi dana jaam njëriñ la alqudaatu attekat yi aadiluna way mandu lañ aljawaadaani ñaari naaru góor yi xawiyaani ñaari way dëgër lañ abu kasab waaye juur musaafiru aji tukki la bu góor alqudaatu attekat yi aadiluna way mandu lañ saaqaa naamati ñaari peeru banjooli peer mooy suuf tànk bi diggante om bi ba ci ndëggu bi ba ci doojoor yi muy fi nit ki taxawee daal euh, ñaari peeru banjooli banjooli naama picc la bu gaaw a gaaw a gaaw gaaw boo xoolee booy jàng téere lu xëy day gis ne arab yi ci moom lañu misaale ak gaaw ñaari peeru banjooli tawila taani ñaari gudd lañ alfatayaatu ñaari yi muhazabaatu lañ Hmm. boo jàngee tur boo xam rek moo ko bindoon léegi Google dañ la bi indi jëmm picc mi nga xool xam ban façon picc la ijaal defal kuréel seen bépp isim ate ci isim lik saani muy mafhum saani li fi'l ñeel fi'l min afaali taxwiil ci fi'lu taxwiil fi'lu taxwiil mooy fi'l yaa xam dafay mujjal maanaa dafay mujjal mbir ci beneen mbir maanaam toxal mbir jëlee ko ci dara yóbbu ko ci leneen yooyu ci zone nag mbokk mi lañ bokk comme niñ ko jàngoon واستوى في مطلع جميع هذه أفعال ولم يري فعل كون دغاني فعل التحويل بي اك فاعل اك مفعول بنجك يي مفعول ثاني لي دون حبيبا موي سوبي سهلا لو يوم يسيرا لو جابندي صديقا قريب وطنا ريو خبزا نغرو في داك سنجر نجوت موي لي لا موسى اكم اسماعيل عليه السلام ليسان بكو ba ko baayam bëggee rey ci ndigalu yàlla <laughs> ndeysaan xar lañ ko jote xar mañ ko andi moo tax reyuñ ko loolu mooy njot loolu mooy njot bu jot mooy li tax musiba bi dalul la xar lañ ko jote mais histoire boobu dana war ne yàlla dafay nattu waaye du mbugale problème dëgg-dëgg ku ko am rek dafa fekk nga wuuteeg sa borom subhanahu wa wa illaa moom mën na laa tiital pour nattu la mais du la mbugal dafay wane yaay kan rek wan la sa bopp ba ëllëg ba la fayee nga xam ne dëgg-dëgg yow nii nga mel ci biir nattu yi yàlla mën a wane yaay kan wan nit ñi tamit ba ëllëg buñ la fayee ñu xam ne mérito nga ko wala boog eh, na ci yow bu dee mbugal parce que nattu yi ñooy wane dëgg-dëgg nit ñi ci biir nattu yi ci lañu xàmmee góor yi loola waral yàlla di nattu waaye du mbugale moom du mbugale bis boo ko nangulee rek da ngay gis ne hmm, ndeke du def dara loola waral wax na bàyyi ji reyal sa doom mu d'accord ñu wax doom dañ laa bëgg a rey mu d'accord ñu dem rey paaka bi mënu dagg parce que du def lu ñaaw Ibrahima yàlla dugal na ko safara mu d'accord ba mu demee safara si lakk ko parce yàlla du def lu ñaaw kon moom day nattu nit mais du lor nit mukk na dina fekk yaa ngi topp ndigam rek doo loru soo loroo rek danga wuti moom ijan defal jus ay kullu jumlatin ñaari xaaju bépp jumla mais jumla ay tas jumla dik ma foon ñaari ma foon saanien ak saalis li fenn ñeel fenn min afaan lati ci fenn yoo xam ne tanti bu dinañ nasab salaasata ma faayal ñetti ma foon wastaw fi matala jëme xaaji afaan yi mboolem yi de fenlu mubtara xabar yi nañ nekk ñaari ma foon nañ nekk ma foon saani ak saalis dégg nga dugal ci fi'il boo xam ne ñetti mafoon lay nasab waaye waaye ci saali mubtada xabar la parce que yi mubtada xabar la kon da ngay jël fi'il yi nga xam ne dafay nasab ñetti mafoon dégg nga dugal ko fii ci saali nekk mubtada xabar su ko defee da nga indi fi'il fa'il benn mafoon ñaari mafoon yi nekk ñaareelu ma foon ak ñetteelu ma foon def naa xam ngeen ma bëgg wax alaamul liggéey bi mutqinun luñ xarañe la alxayaatu dund jihaadun jihaad la dund bi jihaad la parce que coono jihaad rek moo nekk ci àdduna loolu waral doomu aadama bu génn ah ñu bëri ci nit ñi dañ koy dañ koy yërëm triste dañuy jaaxle way la na ne bu bu dee texe na te gëm naa ne yàlla ku bëri yërmande la dañ ko war a ñëwee parce que dund àdduna amul bànneex jihaad la ndax loo yaakaar baneex bis boo demee ba am ko gis ne moo gën a bëri coono hmm, kon jihaad la dund bi jihaad la jihaad nag dafa soxla ngandaay moo tax yonentu wax ne ad du'a silaaxul mu'min ñaan mooy ngandaayu jullit fuñ la wutloo ngandaay rek boo amee xel xamal ne foofu yombul ndax booy dem ci barab boo xam ne dañ lay teeru gànnale la jox lay ñam ak dëkkuwaay yu rafet nga feexlu am dal euh, que foofu kenn du la wax ne yóbbaale ngandaay parce que fi nga jëm nga am sécurité dal nga fa am jàmm nga fa am amoo fa benn problème mais booy dem ci barab ñu laaj ah, yóbbaale sa ngandaay sóoraaleel na barab boo am na risque yonent nag bu ñaan mooy ngàndaay julit kon julit na xam ne àddina bi muy dund dafa am risque jihaad la soxla na ngàndaay ngàndaayam bi gën a foor nag mooy ñaan yàlla parce que lépp ci kàttanam lay doxee moom borom bi subhanahu wa taala way laa nit ñi yàlla dogale ci ñoom rek wala boobu mbindee fi su jihaad boobu nag boo ci génnee ah boo duggee aljana loolu kay jërëtu nit ñi dire kii dañ laa war a ñee eh, boo nekke ci àdduna mën ngaa gis ngeen baal ma nag bokku ci bi rek waaye nag loolu comme ñëw si xaatir bi rek bàyyi ma joxe ko eh, boo nekkee ci àdduna man ngaa man nga gis xar muy lekk ay cox dëgg la moom loolu xewal la ci moom mais yow doomu aadama loolu du xewal ci yow ndax yàlla jox na la lu ëpp loolu ñami gunóor xewal la ci gunóor ga waaye du xewal ci doomu aadama dëkk waaye bàyyi may yi seen pax yi ñuy dëkk ak nguna ganaar yi dëkk waaye fas yeeg xar yi xewal la ci ñoom mais du xewal ci doomu aadama boo demoon baal ba yàlla wan la la yàlla jox ba pare wan la ki ëpp xewal ci àddina nag naan lii lañ laan dund lii naka la ko nit mën a dunde ñami àddina comme ñami bàyyi ma situation rek moo tax ñu soxla ko maanaam xewale àdduna comparé ko ñami bàyyi ma boo ko comparé xewale àlaxira situation rek moo tax ñu soxla ko mooy nekk gi nekk fii waaye buñ jugee ci xaal bi xalaatuñ koo lekk ba ñu nekk ci daara ja daan nañ boole suppu kànje maafe ceeb ak lan yaasa yëpp boole ko def ko ci benn kii benn benn bool jaxase lépp ci yem dañ koy su bu dee weeru yëpp ñu denc ko ba suba teel ñu xëy def ko ci bool bu tàng lool suba te jot ñu xëy tàngal ko <laughs> mu nekk ñam bi gën a neex ci ñam yi <laughs> te amaana moment bii may wax nga yow boo ma ko joxo mën naa mën naa su ko lekkee sama xel mi tey te pourtant moom laa doon dundee hmm? parce que situation la woon rek moo tax moo doon xéwal gi na mag pour man waxuma la sax àdduna mais jamono rek ñëw na ba nga xam ni amaana loolu mënatoo ko lekk waaw eh, di gis dof dugg ci foos tànk naan benn feebar dalu dem ci mbalit yi lekk benn feebar dalu ko pourtant loolu xéwalam na moom pour moom mu ngi neex ak moom mais situation bi mu toll la rek mais yow mu wér loolu xalaatoo ko lekk te boo koy lekk di feebar danga naan lii naka la ko nit mën a bis boo demee àllaaxira gis la yàlla dig jaam yi danga naan àdduna nan la fa nit mën a moo tax bëri na ku dee nit ñi di ko jooy fekk moom mu ngi jooy nit ñi mu ngi leen yërëm ci seen situation bi ñuy dund alxayaatu jihaadun dund bi jihaad la yombul asafaru tukki mu fii dun aji am njariñ la ak tabibu docteur bi xaadun aji teew la almataru taw bi xasirun aji bëri la xubbul watani bëgg réew waajibun lu war la asadiqu xarit bi mahmudun kuñ gërëm la defal ji ñaari mafoon mafoon ñaari ron ak ñetteel dana tegal afaal atee fan yu dikk fi jumal mu fi des jumlu yu am njariñ faata texe na wajada fekk na it jàpp na taraka mujjal na nabba a xibaar na xaara njort na zaama woote na axbara xibaar na jaara mujjal na gis nga baat bi jaara def na lay firi waaye fii mujjal na la parce que dafa bokk si mbokki zone yi taalama xam na dara xam na istamtaa istama déglu na temps wada baaxoo na xaddasa waxtaanal na maam nettal na mën a xamay na faal yi dugal leen jumla am njëriñ yi am ñetti mafoon nag nga wutal ko wala yi am ñaari mafoon kawin formel salaas jumlatin fi'liya ñetti jumlay fi'liya yakun daa nekkal fi'lu fi'l bi fi'aa ci moom laaziman di laazim ñetti jumlay fi'liya fi'l bi laazim lay doon kawin formel salaas bi fi'aa ci moom muta'addin di jàggati li yi waaye li benn mafoon formel ñetti jumlay fi'liya fi'l bi day jàggati nasab benn mafoon كوين فما سلاس من فعلين يتلم يعني لا فعلين يكون ذلك الفعل الفعل بفعل متعدين رجاء قتل مفعولين ينيار مخول أصل ما سنجسان مبتدا وخبر له فرما نيت جملة فعلية فعل بي دين سمنيار مخول وجسان لمبتدا خبر له كوين فرما ثلاثة من فعلين يتلم جملة فعلية يكون ذلك الفعل الفعل بفعل من متعدين رجاء قتل مفعولين ينيار مخول يعني ليس لك أصل ما سنجسان مبتدا وخبر forme ñetti jumla yoo xam dañ ci indi fin boo xam ni ñaari mafoon lay am te cosaan li nekkut mu tara xabar maanaam ñaari mafoon yi seen cosaan nekkul mu tara xabar comme ni ñu ko jànge woon rek كون فهم ثلاث جمل فعلية جملة فعلية يكون ذلك الفعل فعل بفعل متعدين تجاكة ثلاثة مفاعل نية مفعول فمن يت جملة فعلية فعل بداية نية مفعول كون فهم ثلاث جمل فعلية جملة فعلية يكون ذلك الفعل فعل بفعل متعدين تجاكة لواحد نيل كن bi tadee i saani yi nga def bu ñaareel bi muy mu daaf maanaam formel ñetti jumlaay fen yoo xam ne fenl bi faala nga koy tëgg mun a sa benn ma kon si laazim rek nga ko mën a jëlee kawin formel salaas jumalin fen yi ñetti jumlaay fen yokkun day nekk al fenlu fenl bi fi ci di jàkkat lis ne ni ñeel ñaar bi tadee fi saani yi nga ful bu ñaareel ba maanaam ñaareel xarab ba da ngay formé ñetti jumlaay fen ya euh, fenl bi ñaari ma fon lay am waaye faala lañ koy tëgg kon ci lu doon nasab benn mafoon nga koy jëlee kamin formé salaas jumali fin la ñetti jumla fin yokku day nekk al fin lu moom mu taaddiyan di jàkkat waaye di ñëw benn bi ziyaadati xamsa nga yokk xamsa fi awli ci commencement ba te nga formé ñetti bi afan la tëgg mu am benn mafoon kon ci laazim nga koy jëlee kamin formel salaas jumali fin la ñetti jumla fin la yokku day nekk al fin lu fin fi ci moom mu taaddiyan di jàkkat li ñaar bi ziyaadati xamsa nga yokk xamsa fi awli ci commencement ba formel ñetti jumlaay fi'liya fi'l bi af'ala nga koy tëgg mu am ma mafoon tamrin fil insha uktub bindal mawdu'an benn thème tu fassilu nga leeral fii ci moom fassilu mooy leeral amala saa'id bari di liggéeyu kay liggéey ci wàllu leetar yi wa mayyiz ràññeel baana zalik gannaaw loolu mustaamaltu la nga jëfandikoo fil mawdu'i ca thème ba mais af'al laazima ci fi'l laazim wala af'al mutaaddi ak fi'l mutaaddi benn bu ndaw kooku di liggéey ci wàllu leetar yi nga xam ne dañ koy yónnee nit ñi eh, liggéeyam ngay wax nu muy liggéey ak lépp fenn ci nekk laazima mu tax di nga wax ko sif mel la shurti ab pris bu bañ leer la amaalu ay liggéeyam su mazkur nga tudd maa yastamilu la dana làmbo aade ci moom mawdu ak sa tem ci fenn laazim mu tax di ak fenn mu tax di mustahilan nga dimbandikoo fi ci bind bi binaan siri atiya ci ci kenn yi di dikk Eh, kenn eh, bi anaasiri aatiya ci baat yi di dikk daal da ngay meral pëlise bi lu liggéey lépp nga wax ko ba yi nekk fenn laazim mu mutaaddi nga eh, nga leeral ko texte bi nag da nga si dugal baat yi gis moom jëmmam xam bi xaamatu taxawaayam sixatu wéram quwatu kàttanam rabisu yére mi sayfan ci noor wa ci taan ak nawet am ni wëttu kaaraange alxabdu jàppale mujrimiina ci tooñkat yi isaafu naa si dimbale nit fi shadaayid yi ci jafe-jafe yi tanzimu sayri organiser dox bi mooy yoon wi wa mani zihaami ak tere rëjrëjloo mooy buuxante bi ambutiyaas da yaakaar naa ngeen koy wax al muhafazatu wattu al aada ci teggin eh, waxal ci liggéey police bi ci côté yi ak melokaanam yooyu تمرين في الإعراب نموذج نبأت كبارنا سعيدا سعيد أخاه مبكم قارما ما جنيو نبأ في الماضي ممنوع السكون وتا دمير متصل ممنوع الدم في محل رفع فاعل ممنوع وتا دمير فاعل ممنوع الدم يبان لك سعيدا مفعول بي أول منصوب بالفتحة أخاه أخا مفعول بي ثاني منصوب بالألف لأنه نحن من أسماء خمسة من بوكس أسماء خمسة والهاء ضمير متصل مبني على السكون مبني على الدم كن في محل جر مضاف إليه منرفنا والهاء ضمير مضاف إليه مبني على الدم في محل جر ابن لا خادم قادما مفعول به سادس لا منصوب بالفتاة كن سعيدا أخاه قادما يتم مفعول كسنا نبا لسمنا يتم مفعول ñaari <laughs> مجينا nag mubtada aarif inabal ak jumlatee aati seen ñaari jumla yi dikk zanantu njort na al misbaax lamp bi mun tafe an muy aji fay inrab ko zan naag mbokk mi waxoon naa ne li ñuy liggéey axbar ni xibaar na ma faridun farid abaahu baayam maridan muy aji feebar in uridu lislam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh